licence bi ngay signé ak assurance bi eh, dañ la koy wax ne la lépp boo dammee mën nga dee mën nga def lépp mais yaa ko signé ko métier yëpp ñoo am danger mais booy seet kaw mën nga dugg saison ba mu jeex li si am si kaw dañ koy compter souvent nag day am benn ay day am fee yoo xamante ni mooy feeñal lu bëri mais même Eumeu Sène xam na ni kaw bokk na si lambu. man xam naa ko sama beneen moroom xam na ko CNG lu mu siy dif pour mu def bëri simple waaw non même dama blessure yi am si bëri simple amu sax si bëri dóor amu si te tey defe ni euh, bëri simple mu ngi fi ku bëgg a seetaan man nga dem seetaan mais gars yi bëri loolu moo leen si neex sax.